Nous sommes ay jeunes dëkk ci dëkk bi regroupant l'élite intellectuelle de la commune c'est-à-dire les élèves et les étudiants Nous sommes à notre niveau war nañu di participer à la résolution des problèmes parce que dañu nek ci situation bo xamanteni clandestine commencé na am on voit dans nos quartiers des jeunes mourir en mer périr en mer ndax lan dañu né dañu bëgg réussir ci sen vie mais dañuy wax que ni ñun étant amical il faut que ñu apporter une solution par rapport à ça ci thème bi ñu ngi ne euh, l'immigration clandestine la solution du leadership jeune nous étant jeunes nekatuñ sax ci cadre élève ou étudiant nous ñëw pour porter euh, porter combat bi joxé des solutions par exemple jéem a instauré ci bop jeunesse bi ñu gëm que ni ils peuvent entreprendre rester ici parce que par exemple Kujel gal, war fadil fujohe 400,000 francs, 400,000 francs nonu man Je peux écrire un projet bancable, un projet bancable, pour accompagner un jeune avec 400 000 francs, pour aller à 4 millions, à 40 millions, à 400 millions. C'est-à-dire pour dire que les gens qui ont on peut rester et, et, réussir. C'est ce que objectif euh, rencontre bi on a invité les pêcheurs on a invité les euh, les autorités on a invité les étudiants on a invité la population les femmes bàjjenu gox invité pour dire que ni li fait fi dajale mooy joxe xalaat par rapport à li xew fu ci nekk wax. man pourquoi parce que. en 2006 ñun ñoo jëloon gaal yi dem te boo xoolee 2006 bi ñu defee contrat de pêche yi ci moo ñu yab moo taxoon ñu yokk tax ñu dem tey boo gisee loolu changé wul nga xool tey euh, milliards yi nga xamante ne moom nan signé woon ak Union européenne ñun gisuñu ci dara bi ñu joxee dix mille francs comme sandwich keroog mu mujjee xam ne xew.

kon tay li man bettuma man aujourd'hui. ne dinañ jël gaz yi dinañ dee c'est pourquoi alerté woon autorité mais dégguñuma kon aujourd'hui li ñu sur def moy ñu sur table waxtan ONG yi association yi ak yi bu ko défé ñu jël méthode nous. yi dañuy Diop il l'a pertinemment dit que risque le ñuy jël choisir cette forme d'immigration clandestine et c'est extrêmement important risque le parce que amul benn garantie début à fin donc moom bu fekkee ne mool la pêcheur la xam géej gi loolu rek la xam bu ko waxee ñun ñi nga xam ne li ñuy wax peut-être ay moolu kaw lañu daf ci am loo xamante ne doy nañu donc relancer encore demander à nos amis nañu nous xel bu baax baax ci euh, gaal yi parce que d'abord c'est des problèmes de bout en bout risque bu ci nekk gal gi pas garanti condition ya ngeen cee nekkee pas garanti nga dem egg foofu am yaakaar bo xamante la nga yaakaar ne mom nga fay fekk sa dog fa donc c'est vraiment pour vous dire que euh, l'immigration clandestine bi nga xamné jamono ji mom la wax en tout cas ñun encourager wuñ ko te ñu kenn à ce que ñu emprunter cette voie jéem arrêté hémorragie bi moy départ bi mais nit ki bokay téy mu bañ dem il faut nga am loko jox loko ko lu ko mais en même temps duñu ñu cautionner li ñuy def parce que li ñuy def xaru la geej gu yaatu plus de 4000 ou presque 5000 km nga nar ko def xolo météo xolo temps bi xolo seddaay bi ci am xolo mouvement wu ndox bi ci am et tout ça embarqué ay doomu nit ñu jël seen xaalis jox la bien que ñoom ñoo ko bëgg risque bi nga ciy courir risque bi nga pour courir nga daj yëpp lu lu jafe expliquer la te xale bu toll ci ndaw bëgg a tekki décider ne lii lay def ku naqaree tey la donc dans un premier temps nit ñi nañu waxtaan seen biir waxtaan ak seen biir njaboot waxtaan ak commune comme li ñuy def nii lu ndaw la bari na nit bariwul nit.

mooy la dimension politique la dimension économique et la dimension sociétale Sous la dimension politique est-ce que l'État respecte les promesses? est-ce que ah gestion bi na gestion bu bu est-ce que la malgouvernance est-ce que les pouvoirs publics et les pouvoirs communautaires jouent pleinement leur rôle parce que chaque fois que nous doon dégg ñaan dañuy recruter jeunes yeeg dañu jàppale jeunes mais nous yëpp loolu yëpp boo xoolee du dimension économique la pauvreté bi ak euh, chômage bi ñaar yooyu rek principes yoo carrément nek cause profonde pour que xalé yi jël euh, vraiment euh, yoon bi nga xam moy mooy yoon irrégulier bi pour mun outil ben benn vie meilleure. beneen bi moy ñetteelu mbir moy euh, la dimension socioculturelle moy concession bi nga xam représentation ni ñu am ci Europe pour ñom Europe c'est l'Eldorado mais ñu jàppale ci mbir bu amna ñaari mbir li wax li waral phénomène bi moy la phénomène d'anticipation ak le phénomène euh, imitation d'anticipation da ngay nek ndaw nga def lepp lu la war nga gis ni ba léegi dal mbir da wul su été nga jang mënoo amee stage c'est c'est changé de de de yor te à retour yow nga waroon investir si bi ainsi phénomène d'imitation bi Un mel ni képp dëkkuwaay yaraax ñu gis ni jeune xëy jël bi un an dem na changé sa mode de vie Nous na defar këram yóbbu na ay waajuram ñu un Nous otom yow nga yow deux ans plus de ans am benn sax projet bu réussir nga ne kon li

Rafet parce que ñuy dem aventure la da ngay dem si lo jëm du parce que da nga parce que du parce que y' a peut-être quelque chose luy animer... peut-être dañuy jënti sommes yaakar ni feulé des li ak li mo fay am ñu la mais en tout cas euh, li ñu wuti en tant qu'étudiant, je propose qu'on reste. Mais comment rester En portant des projets, des projets d'initiative, des projets d'économie sociale. Parce que pour le projet d'économie sociale, moi, je toucher à la fois euh, une bonne partie de la population ba pare ñooñu noonu mën ci santé sen bopp. Euh, solution yi lenn la il faut mettre des projets mettre des centres de formation accompagner les nak mu lu wax ne dëgg la muy deug mais ay wax yi tey xale yi nan tok fee xalé yi waruñoo dugg ci geej gi yoy du affaire bi affaire bi moy milliards yi ñu daan signé nan ko signé ñu jox ko xale yi ñu dem liggéey yi maanaam wutal leen formation professionnelle te wutal leen maanaam ay jumtukaay yoo xam ne dañuy liggéey mais àll baa ngi fi géej gaa ngi fi suuf saa ngi fi lan moo ñu dese ñu am i ndaw pour réussir mais bu fekkente ne ne ñun dañoo yor ay maanaam ay dirigeants yoo xamante ne ne xamuñ seen bopp xamuñ seen bopp gi mooy lan parce que ñoom dañoo bëgg milliards yi ñoom ñu di ko lekk du ñu dem ci base bi il faut aller à la base wàcc ci base bi comme Yarax comme Thiaroye comme Mbao comme Kayar comme Bargny comme Tëngéej bu ko defee ñu dem ci xalé yi gutal leen ay formation parce que ndaw dafa wara am formation ndaw dafa wara am jang comprendre mais bu fekkente ne na loolu amul solution amul ba paré nag géej ñu wañi accord de pêche parce que accord de pêche mo bu bëgg gën sonal parce que bo xolé gaay yi di yóbbu gaal yi ay mol nan te mol bu démé ba nga xamante ne géej gi muy nekk mënatu faa gis bopam pour dundal da fay jël géej gi dal dem île de Canaries on dit euh, solution leadership jeune, c'est une voie. Mais euh, solution là, mais solution bogus il faut réunir les conditions pour mettre en œuvre cette solution. Le leadership jeune, c'est vrai, mais il faudrait que ce soit des jeunes qui soient engagés, il faudrait que ce soit des jeunes, pas des jeunes de combat, mais des jeunes qui soient visionnaires, des jeunes, euh, ils ont l'esprit euh, de la créativité, ils mettre en place un projet, si xamante buñ l'État, ko soumettre état état mën la accompagner leadership jeune ne veut pas dire jeune bu ci nek da ngay tok sa kër tok di naan ataya nga tok di xaar état fekk ci le pour apporter des solutions non c'est-à-dire c'est le sens contraire que des jeunes soient porteurs de projets ñu daal au niveau de l'État présenter ces projets ñu xol ban source de financement nañ ko solution bi mooy xam nga yenn étudiants yenn jeunes yi dem nañ jàng xam-xam am xam-xam boobu boo xamante ni ñoom ba tey utiliser guñ ko.

manam lepp lu jëm ci affaire auto euh, yi ñu yor ak aussi yenn machine yi transformé ñun ñëpp bu ñu ñëwé ku nekk sa xeetu xam-xam nga indi ko et puis and ak ku mel man nga xamante ni man euh, entrepreneuriat lay jàngale université ma andi sama xam-xam ak sama réseau ñeneen ñi nga xamante ni ñoom mën nañu financer ay projet yu am solo. on parle de ce qu'on appelle le développement communautaire la synergie d'action moo tax ñoom tey seen volet dañoo am euh, de sensibilisation volet d'accompagnement ñu dëkk nag phénomène bi nga xam ne yaraax la ku ne yaraax ne des candidats potentiels à la migration ku ne yaraax ne a des migrants de retour ku ne yaraax ne a des parents des migrants amical nag tey war a le socle wax ñoom am na xam-xam bu la yàlla may ñu war a nag andi fi ay solution solution yi nag mënul ñëw rek tey si forum bi rek mais essence yi fi def ak panélistes yi ak euh, participants yi moom la jël créer cadre on peut dire ben suivi ici bobu boobu nag ñu xool bu leen ñu war a xale yi taggal leen bu leen la war fekk fi nekk sans bi leen bu leen yow outil ay bailleurs ba outil leen gisal waxtaan ak ñoom dafa ay entretien waxtaan ak état bi waxtaan ak nguur bi waxtaan ak comité waxtaan ak ñëpp ñi nga xamne ay acteur lañu ci walu migration. phénomène bi def ñu jaaxal sax parce que dama mënul comprendre lan mo xir xale yi. ñu jël initiative bi di rey seen bopp ci géej gi pour man dama ko gisee ne balaa la dama gise ne balaa la rek wala ñu xabtal leen ndax vraiment yow gis nga samorom dem na yeggul beneen dem na yeggul yow looy wuti man loolu mooy suma problème mu nekk loo xam ne phénomène bu doy waar la bu naqaree gis bu naqaree digérer aussi fa métti ci waajur ñun quand même ñu ngi sensibiliser ñu ngi waxtaan ak nit ñi pour ñu téye seen doom yi ndax yaay doom ci xol la ne fa jege torop même boo jurul ñi nga xam ne gis nga leen ci géej gi même boo leen jurul sa xol du neex kon ñu ngi ñaan xale yi nañu toog xaar yàlla yàlla dina ñëw incha allah nañu toog xaar yàlla. te xam ne yàlla fu mu teg doomi aadama rek dina am lu tax mu teg ko fa bu ñu yàkkamti seen àddina di di yedd aussi yaayu xale yi surtout ndax di nga gis koo xam ne bokk na ci nat teggi ko jox doomam kooku xam nga ne waxul ne yëgul ne sama doom du dem ci gaal gi yëg na ko parce que moo ko jox financement bi ba tax muy dem waa kooku bu doom dee est que war na koo jooy waru ko jooy parce que bokk na déjà ci li rey doomam man sama wax duma ko nëbb dafa loo xam dafa métti ci sama xol yaay yi bu ñu encouragé xale yi ci géej gi parents yi nañu moytu di encouragé xale yi ci géej gi am na ñoo xam ne nag seeni i parents yegu mais am na ñoo xam ne seen i parents yeg nañ ko ndax ñooy teggi seen i natt jox seen i doom kon kooku yëg nga ko wala ñu jaay seeni i or jox seen i doom kon ñu yeg nañ ko comprendre man loolu mooy suma problème maa ngi sensibiliser yaay yëpp yaay yëpp nañu mel ni ñun bàjjenu gox yi nañu moytu di jël seeni alal di ko jox xale yi ñuy dugg ci géej forom bi dafa mel ni ñun bàjjenu gox yi moo tax mu jóg ndax ñun la gën a yombalal suñu liggéey kon ñun ñii ñoo tax mu jóg man dama remercier étudiants yi remercier naa amicale bi bu bëree bëree bëri déjà am naa ñu ma ci xam vraiment dama leen remercier di leen encourager yàlla jàppale leen ci xeex bi ñuy xeex ñu boole ci bàjjenu gox yi nag ñu ànd ak ñoom sensibiliser sensibiliser dëkk bi kuñ ci war a waxal yaay bu ñu war a gis ñu gis la waxtaan ak yow man dama leen dama leen di encourager ah te kontaan naa ci ñoom tamit vraiment.